noo ngi del nii ci xadiisu ummu zara tey ñoo ngi ñëw ci fukkeelu jigéen ji la mu waxoon yaa Aïcha kenn ku nekk ci ñoom wax na ñi xas seeni jëkkër xeeb leen ñi it tagg seeni jëkkër naw leen fukkeelu jigéen ji li mu wax mooy zawji malik wama malik malikun xayrun min zalik lahu ibilun kasiratu almabarik qalilatu almasarih qalilatu almasarih إذا سمعن صوت المذهر أيقن أنهن هوالك زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المصارح إذا سمعن صوت المذهر أيقن أنهن هوالك soxna si mu ne yaa Aïcha man dey sama jëkkër mooy Malik am na ñu ne turam la am na ñu ne li mu ci jublu mooy jëkkëram day aji moom la te li mu moom dana ko joxe moo tax mu tekki ni wama Malik kon turam mooy Malik wama Malik li muy tekki mooy ndax xam ngeen Malik ndax xam ngeen kan mooy Malik ma wax leen ci Malik tabeem mu mel ni rek nga ni sama jëkkër daal mooy Ibrahima moo ndax xam ngeen kuy Ibrahima ñaar rek moo ci mën a topp tagg ibrahima lool wala xas ko moo tax mu ne wama malik ndax xam ngeen ci ibrahima dala mu mel ni dañ ko ni déedéet mu ne malik xayrun min zalik mu ne malik mii di sama jëkkër ma war leen a wax mooy kan malik ku nit di xalaat ci ku baax képp ku ñuy tagg ci tabe ak mbaax yëkkatiku ak respecté jigéen ak teral jigéen ak sopp jigéen naw jigéen kuñ ci mënti tudd nee na Malik moo la gën a kawe muy jëkkëram maanaam jëkkëram góor gu ñeme poos la am alal mën a joxe te boo ko laajee du laaj lu tax nga laaj ma boo laajee rek mu joxe bal àgg na ci sax du xaar nga laaj mbaa àgg na ci jabaram xam ko ay mbokki jabaram xam ko ay xaritu jabaram xam ko ay dëkkandoom xam ak tabem kon góor dafay tabe tabe mbokk yi bind la jikko la mooy koo xam ni loo am doo bëgg mu fanan ci sa pos waxtu wu nekk yaa ngi bëgg nit ñi kontaan nee na kooku mooy borom këram mu indi misaal bi ne lahu ibilun kasiratul mabarik قليلات المصارح في عربي سين على الجر لون من مالك مومو دي له إبل كثيرات المبارك من اللي مؤمتي أي قلم نيني تولو نون لن أمي أي غورواي لولو مثال التي قلم اللي مي بري بري بقول نصري ndax su gëléem yi sore gan ñëw mu bëgg a rey gëléem day wëri moo tax kër gi yépp gëléem yi dañ fiy yës àll bi gëléem yi dañ ciy yës moo tax utul sardi sardi mooy sàmmkat utu ko mu ne lahu ibilun kasiratul mabarik moom daal li mu am ci ay gëléem noonu lañu bëree yësuwaay ak gooruwaay mu ne xalilaatul masaarix gëléem yi lu ñuy bëri bëri bëri nanu bëree gooruwaay loolu moo tax ñu néew benn diwaay ay gëléemam néew na lu ñuy dem ci àll bi ñu leen di sàmm ñuy lekki moo tax Malik buggul jël sàmmkat buggul jël xale di ko sàmmuloo ndax day bañ gan bett ko te du am lu mu rey kon même bu demee sàmmi am na yuy ne ci kër gi maanaam dafa bëgg wax ni alal ji mu yore xaalis bi mu yore buggul mu koy sori fu mu toll ci poosam lay nekk ku ko nuyu mu yëkkati jox la noonu la borom këram mel ci tabe yàlla nañu yàlla may jikko boobu kon tabe jikko bu baax la mu ne gis nga gëlem yooyu jëkkëram am mu ne ida samina sawta almadhab gëlem yi fa ñu goor nee na suñu déggee riib ak paaka ya suñu déggee riib ak jogre ya suñu déggee riib ak woñ ya loolu nag wolof la mooy riir ya jaasi ak paaka yi di riir gëléem yi fa ñu toog ci wetu boucherie bi mooy zariba nee na ida samina sawta al mazhar bu ñu déggee baatu paaka ya walla baatu jaasiya walla ñu dégg yëngu rek nee na ayqanna annahunna hawalik ca saasa rek bu ko gëléem yi déggee rek dinañu wóolu ne ñoom danañ dee tàmm gu mu tàmba loj gëléem tax na gëléem yi ragalatuñu dee fu ñu gisee jaase xam nañ ñi dañuy dem kon këru Malik waxtu wu nekk ñu ngi berndeel Malik daa baax ba bu ñu yàkkee añ këram danañu tegal gan yi añ suñu yàkkee reer tegal gan yi reer suñu ndékkee tegal gan yi ndékki kon ndaw si nee na jëkkëram tabe la ku mën a joxe la waaye ndaw si yit ku yaatu la te siisul kon Malik jabaram tagg na ko nee na góor gu baax la góor gu tabe la góor gu mën a maye la góor gu mën a joxe la góor na boo xam ne buy wuññi du làqatu ndax ragalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la meloon buy maye du xalaat ëllëg du denc lu jëm ëllëg kon yéen sama mbokk góor yi maa ngi leen di woo ci jikko bu rafet bu baax bii mooy di may say goro di may say mbokki jabar di leen defal teraanga ñi xam sa jabar sax dee leen defal teraanga ndax yonent bi Xadiija amoon na benn xarit benn bis ñëw na di ko seet yonent bi dafa daw dem jëli kaalam lalal ko ndax teraanga bu mu séqoon ak soxnaam kon mbokk yi soxna sii tàgg na borom këram ci tabe ak mbaax kon góor ñi nag mbir maangoog nañu leen di góorgóorlu ci mbaax yàlla nañu yàlla dimbal dimbale leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.